Maroc su jootu na ci digganteem ak équipe bu France bi nga xam ne moom la doon dajal léegi euh, demi-finale de rêve demi-finale boo xam ni euh, daanaka mujj na yem ci ay gént ndax fi mu toll nii histoire vrai euh, Maroc toog na ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi nga xam ni sa propre coupe du monde la ndax réew arab yi nga xam ni fa lañ koy joué réew arab yooye daanaka bu fa Maroc nekkee dafa mel ni ko nekk Rabat waaye loolu lépp am solo bu baax a baax France nag daanaka fi mu toll nii danoo nekk ci yoonu jëli coupe bi Kylian mi nga xam ne daanaka lu mat juróomi footballkati marocain yi séq nañ ko mu ne ci digg bi séqeeku na daanaka dugg ci li nga xam ne mooy surface préparation yi marocain yi nga xam ne ah, daanaka joxe bal ba deuxième bii ba action bii ma leen di woon daanaka ah, foofu la jege nekk action action boo xam ne ah, kii di Kylian Mbappé sonn na ci bu baax a baax ci faaj-faaj joo xam ni def na ko ci biir li nga xam ni mooy surface préparation yi nga xam ni yëkki na ko première bitub France bi nga xam ne juróomi minute séngam la ñu bal ñu dugal ko ki ko dugal Hernandez la di latéral gauche français bi nga xam ne saf sàpp la def wexxatta xorom moom moomee moo ko dugal ci benn xajji boo xam ne tànkub tàmmoñ bi àjj na ko bal ba mu ne cabax ca biiri camp yi euh, Maroc gi nga xam ne fi mu toll nii euh, jërul ñuy sëngëm ndax génn nañ euh, li nga xam ne mooy histoire boo xam ni Afrique xii ni xaana gim nekkoon loolee jeex na tàkk deuxième bii ba nag ka ko dugal dafa dugg première bal bi nga xam ne laal na ko kolo mu naa mu naa ni nga xam ne première bal bi mu laal moom la fëgg ci biir camp yi daanaka mu nekk 2-0 yoo xam ni 2-0 yi ba mu ko dugalee stade bi ni seloo marocain yi nga xam ne daanaka ñoo fa ëppoon ay supporters bal position tamit marocain yi ñoo ko lekkoon daanaka ci 60 soixante minutes ba ñu fay toll euh, juróom fukk ak juróom-ñeent yoo jël ci téeméer bu ne euh, marocain yi ko bal position euh, li nga xam ne mooy tiir yi Maroc am nañ juróom-ñaari tiir ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent yoo xam ne passe yu réussir la France nag booba mi ngi ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti passe fukki tiir yoo xam ne yëkki nañ ko ñeent ak benn ci téeméer boo jël ci li nga xam ne mooy bal position yi nga xam ne français yi am nañ ko kon Maroc daanaka bu football doon joxe moom mii mooy gagné li nga xam ne mooy match ba waaye li ma leen doon wax rek football lañuy laaj mooy euh, ku gagné.